amin salaatu wassalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ixwatal iman assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma allahumma waffiqna lil 'amali bil 'ilmi ala wajhi al ikhlas اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين واجمعنا مع المخلصين المخلصين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وأكرمنا اللهم بخيرات نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين mbokk jullit yi ginaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam na ko yàlla dolli xéewal te musal julit noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suratu yunus ci kàttanu 9 soixante ñetti aaya yoo xam ne sunu boroom subhanahu wa taala lim ñi ciy jàngal nekk juróom benn mbir yooyu ba ca jiitu mooy taqriirul waxyi wa isbaatihi linnabii sallallahu yàlla tabaraka wa taala mu ngi saxal waxyu te mooy alquraanul karim kat doom la ci la saxal ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo koy jottalil kat doom googu maanaa sunu borom subhaanahu wa taala ku ne xam ne ne alquraan kat doom la waxam la waaye kàddoom googu ku mu tànn ne ko yow yaa ci doy yaa koy jottalil jaam ñi koo koy Seydina Muhammad moo tax doon wax démb ni leeralaat tey mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah yàlla rek lañuy ñuy jaamu muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla loolu moom mooy diine moom moy message yu yonent alayhi salaatu wasalaam yonent yàlla yónni gim ko yónni pour leeral yàlla subhaanahu wa taala ndaka la ñuy jaamoo yàlla mais amul leneen ñaareel bi ñuy jàng tey mooy at tahrim illahi taala duna saa'iri xalqihi araamal ak daganal loolu yàllaa ko moom araamal ak daganal yàlla moom jaamam ñi kenn amul droit di araamal wala ngay daganal déedéet wala taqulu lima tasifu alsinatukum haza xalaal wa haza xaram jékki-jékki rek lii dagan na lii araam na déedéet araamal ak dagan yàllaa ko moom jullit amul droit daganal lenn lu dul yàlla daganal amul droit araamal lu dul yàlla araamal ngeen tey ci yomb gi ñu tàmm yomb diine yenn saay yi sax ñu fekk lu yàlla araamal nga ne araam na ñu ne la dimbali bu ñu kenn rey bu ñu kenn damm fi àdduna la yéen xanaa amuleen lu dul araam araam araam araam dara daganul du noonu dagan ak araam ci loxo yàlla la nekk tey jii ci sunu dund di nga gis ay nit di araamal loo xam ne yàlla daganal na ko nga gis ñoo xam ne dañuy daganal lu yàlla araamal dinaa leen jox ay mbir misaal ay mbir yoo xam ne sobe la araam na te nit ñi nangu nañ ko mees araam wala araamul daa araam mais tey koo wax Sénégal ñu ne la xees daa araam araamul ah daa araam wala araamul sàngara ay texte yoo xam ne wàcc yàlla ne lii araam na nit ñi nangu ko tey boo fi bëggee ubbi baar soo ubbee baar baar bi amul këyit lu ñu lay wax clandestin la léegi boo bëggee normal ñu ne da dem nga jaar ci yoon dem police préfet gouverneur ministre de l'intérieur gouvernement bi autorisé la ne la mën ngaa jaay sàngara waaw ndax yàlla araamalu ko lu yàlla araamal naka lañuy ñuy autoriser ay nit ne mën nañ koo def jaay sa bopp njaaloo daara jigéen ju ko def su la police ramassé lu mu lay wax ana sa carte ana sa carte awma carte ñu ne yow kon nekk clandestin nga nekkoo ci yoon bi bu la police jàppee guddi nga doon jaay sa bopp nga génne sa carte police bi di tooj daal la ne yaa ngi ci yoon wi te en règle ah daal lay toojal ne la yaa ngi ci yoon wi ban yoon wax na dëgg de yaa ngi ci yoon bi parce que yaa ngi ci yoonu jahannama kon yàlla lim ñuy wax nii lu leer la mooy ñun danoo fekk lu yàlla araamal ñu daganal ko musique dafa dagg dafa raam dagal na ci naka noonu dañoo fekk loo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo kontaane ñu sànni yàlla ñu fekk dagan na ñu araamal ko dangay gis koo xam ne dafa am xar dem daral jënd xar bu weex xar bi bu ko kenn xar mi noonu lay nekkee ba dee ñu dir ko sànni ko ci àll ba kenn du ko lekk xar mi daganoon naa rey dagan naa lekk der bi dagan na ah ñu daal di koy araamal noonu kenn du ko laal ba xar mi medd dem dem alaaxira loolu mooy lii yàlla dañuy jàngal tey bu leen fekkati lu araam ngeen daganal ko walla lu dagan ngeen araamal ko mbirum dagan ak araam yàlla yàllaa ko moom yàlla jox ko kenn ñetteel mooy xurmatul kazibi alallah fenal yàlla bàkkaar gënu ko rëy su fekkente ne nit bu fenelee sayduna muhammad safara la jëm kon ku fenel yàlla foo jëm hmm? su fekkente ne ku fenal yonent bi yonent bi nee na man kadaba alayya falyatabawwa maqaduhu minan naar ku ma fenal bu yeboo mu préparé xam ne safara la jëm ki ñu doon jàngal xadis bi ndeysaan yàlla na ko yàlla fay nee na li tax ñu ne am na place waa ji am na place ci safara fu muy toog mu ne booy dem mu ne booy dem fenn nga nar faa yàgg booy dem fenn nga nar faa yàgg te soo demee dangay taxaw te amoo doole danga néew kàttan te man nga lan lañ lay yóbbaaleel foo toog moo tax yonent bi ne ku ma fenal booy dee bu yeboo nga yóbbaale ban foo toog parce que biir safara nga jëm te di nga fa yàgg mooy faliyata bawwa maqaduhu minan naar waaw ku fenal yonent bi dem safara kon ku fenal yàlla nag gis naa yàlla yàlla nee na ma démb maag yàlla nekkoon loolu yooyu ngay dégg tey Sénégal waaw keroog benn waaye nee damaa gis yàlla mu ngi toog yaru ñoom daal xam naa ñoom bokk ñoom ñun daal ah ñun boobu ba léegi sax ñoo ngi jéem a gis Aboubacar sax pour géntu ko sax mënul nekk waxuma laa yonent bi nag waxuma waaye ñoom yo gis yàlla daal waxuma sax ay ñoom Muhammad ak yonent yi déedéet ñoom yàlla rek démb gis naa yàlla keroog waa ji nee na man keroog damaa demoon safara bi demee dafa am ñu ma doon ràmm ji liste lañ ma jox waaye ba ma demee sax génne naa fa ñu ëpp ñiñ ma joxoon <laughs> déglu ko affaire daal dafa mel ni ay léeboon ak lépp comme du àdduna comme du diine bi yonent bi doon wax sallallahu alayhi wa dafa mel ne ñun beneen diine lañ yor te sax loolooy dëgg beneen diine la yor bu dul lislaam diine lislaam moom ndeysaan tubaranke na dem na ay tuutee fi des loolu ñu doon wa sa yaudu gariban kama badaa ci lañ toll tey nañu jàng tey ne xurmatu alkadib ala allah yàlla mbokk yi dafa xaram ku mustawjibun lil azab kuy fenal yàlla mbugal mooy tegu ci sa kaw kon nanu mooy tamit ci <coughs> suñu yëpp nag <coughs> lépp lu mu a doon nañ ci moytandiku di fenal yàlla subhanahu wa ak lu mu mun a doon ak lu mu mun a doon bu dee ci jaamu gi la bu wax ji bu dee ci lépp lu mu mun a doon ab julit na moytandiku kemtalaayal kàttanam naan yàlla nee na ma wala nee naa yàlla wala gis naa yàlla wala wax ak naag yàlla ngeen ne yooyu ay mbir la yoo xam ne dara munu cee nekk fii nu toog nii <coughs> am ci a gis yàlla ku mun a wax amul kenn ci ñun ku mun a dem ci moom xanaa ku dee te ku dee sax eggoo ci moom ci bàmmeel yi la suul toog naag yàlla wax na ak yàlla yàlla nee na ma beneen mooy kenn ku nekk ci ñun tey même boo gisaatoon yàlla yàlla mënu laa jox lenn te la suñ yoon nekku ci ndax yàlla lim doon jox Muhammad jox na ko ba pare kenn doo dootuñu lislaam dootul nangu keneen indi leneen di ko cek ci kaw yonent bi day ngeen noo tax yonent bi saa salaam bi mu gisee Umar ibnul Xataab mu yor tawraat yonent bi dafa mer mu ne Omar maa ngi lay génneel ci yàlla Isa bu dekkiwaatoon tey adduna bi Moussa Moussa bu tey adduna bi dara du yaatu ci moom lu dul mu nekk sama ginnaaw kon mbokk jullit yi ñu góor góorlu suñu kemtalaayal kàttan ñu yëg ne fenal yàlla dafa xaraam kii fenal yàlla safara la jëm ñeenteel mooy maa azama niamullahi taala ala ala alibad wa maa haza fa hum laa yashkuruuna illa alqalil minhum maa niamullahi dara gënta màgg walu yàlla sunu borom subhanahu wa taala defal ay jéewal waaye li ñu seetlu mooy jaam ñi duñu sant yàlla te yàlla waxoon na wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yàlla waxoon na wa in ta'uddu ni'matallahi la tuxsuha wallahi alazim yàlla waamey xéewal yu dul jeex ci ay xéewal sotti suñ kaw waaye doomu aadama yi ñoo dul gis xéewal yi leen yàlla defal ah tey jii feebar bi tasaaroo noo ngi nii toog yàlla musal nu musal nit ñi war nañ ko sant ci loolu wala waruñoo musal loo xam ne xamoo foo koy jële xamoo foo muy jaar xamoo mbedd mi nga jaar xamoo ki nga dajeel xamoo sa doo xam loolu sa loolu dañ cee war a sant wa taala doomu ndey mbokk jullit yi waaye waxuma la loolu sa sa yaram sa cër ñaata nit tey ñoo feebar ñoo tëdd hôpital yow dara dalu la sama ku jigéen dafa dem nduggi marché day day jóg di daanu day day taaba taaba mu jóg ñëw daal di daanu ci escalier yi tànk bi damm ñetti ñaari damm damm ma nga ne tëdd wala loolu xoolal nattu yooyu nit sama beneen dëkkandoo koo xam ne sax jarbaat la ci man tukki di ko ñetti weer jotuñu ko ba barki démb ñu woo yaay ji ne ko dee na ci biir néegam lañ ko fekk dañoo dajji buntu bi fekk ko mu dee yàlla xéewal yi ñuy may dara dalu la sa bët yaa ngi gis jëndiwoo benn tuufaay nopp yaa ngi dégg demoo kër docteur yaa ngi noyyi yaa ngi wax yaa ngi dox yaa bi am na ñoo xam ne tey bu ñu buggee dem toilette hôpital bu ñu bëggee dem wanag hôpital am na ñoo xoolal pousse pousse pousse pousse yi léegi ñu ma may pour ay handicapé la yow yaa ngi dox nu mu la neexee waaw loolu duñ kon yàlla tabaraka wa mbokk jullit yi xéewal yi def ci ñun ma azamu niamallah ak a màgg taala alal ibaad yàlla yàlla xéewal yi muy defal nit defal ko sutura defal ko aafiya may ko alal may daraanga may ko wér may ko xam-xam may ko lépp wa ma kullu haza fahum la yaskuruna illa qalilan jërëjëf sëñ diw moo niinal ceeb bi waaw yéen war ngeen a sant sëñ bi sant sàmba war ngeen a sant demba ndax bu duloon du moom moom lan la def moom moo taw taw bi moom moom moom suuf si moom moom meññal tool yi moom lan la def deful dara kan lañ war a sant mooy ki def loolu mooy sunu borom jalla jalaaluhu azza kamaaluhu lii nuy wax yàllaa ko def mbindeef defu ko kon mbindeef mi lu xanaa lenn sa jabar sax wax dëgg yàlla suñ la suñ la joxee boolu ndogu nga ndogu ba suur yow yaa ko joxe dépense bi de yaa ko joxe waaye sa jabar bi ci tàngaay bi bi ci naaj wi bi ci waañ wi ba yëf yi pare boo ndogoo ba pare sax boo ne alhamdulilahi rabbil alamina waxal soxna si jëf ndogu bi neex na waaye santoo yàlla santoo soxna si waaye dafa am otoom 4-4 mu romb benn waaye ci tàngaay bi mu daw ba droite daal dëkku sàngam mu ne ko waa ah, dinaa jaar noonu mu ne ko yéegal waa ji yéeg mu daw moom lu toll nag 3 kilomètres egg waa ne ko fii laay waaj mu ubbi bunt bi waa ji ne sëñ diw sëñ diw jërëjëf mu ne ko kaay yéegaatal waa ji yéeg rek mu def demi tour accéléré oto bi ba fi mu ko jële woon mu waaj oto bi maa moom xanaa boo baadoolawul sax nga sant yàlla xam ne yàlla moo la defal tawfiq wala nga ne waa ji jërëjëf yal na la yàlla fay waaye dafa am ñoo xam ne pas-pasu tawxiid moo nekkul ci ñoom amuñu tawxiid munuñu kennal yàlla xamuñu yàlla ay bàmmeel ak ay xërëm lañuy gërëm bàyyi yàlla sunu borom subhaanahu wa taala xéewal yi mu sotti sunu kaw wallahi allazi laa illa huwa di ko bind bi gi nekk ci àdduna bi yëpp dina jeex doomu aadama bu fekkoon dafa jël garab yi garab yi sax ci àddina mu def ko ay big mu dem ci géej gi def ko encre muy càpp di bind xéewalu yàlla yi géej gi dana fer xalima yi dana te sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu lim ñu defal ci ay xéewal du jeex ixwatal imaan dañu war di sant yàlla sant jaamu yàlla la sant jaamu la sant sant mbokk yi jaamu la jaamu yàlla gu màgg la sant yonent yàlla Moussa dafa ne yàlla waaw yàlla li ma defal yëpp ban baat laa lay wax rek ba sant la yàlla ne ko sant nga ma comme yaa ngi xalaat pour sant ma rek sant nga ma ixwaan yi juróomeel mooy wujub muraqabatullahi taala tey danañ jàng li war ci ñu mooy nuy fuuglante ak yàlla xam ngeen fuuglu xam nga fuuglu ah. fuuglu baat bi mooy lan xam nga ko yow fuuglu xamoo ko yow yow mbay ah, mbay olof la mooy lan fuuglu nga yëg ne yàllaa ngi la sëpp di la surveiller ñu surveillante ak yàlla soo doon ki nekkee ci mbooloo moo xam ne xamante wu leen da ngay surveiller sa bopp surveiller seen bopp ku nekk di surveiller moroomam naan nii. ci bàyyante ko waaw bàyyante xel ñun nag dañoo war a bàyyi xel yàlla dañoo war a bàyyi xel yàlla lu ñuy def ñu bàyyi xel yàlla loolu mooy. xam nga lan la lay jural mooy nga sellal lu tax parce que xam nga ne yàllaa ngi may gis ittaqillah haysu ma kunt wa atbi a sayyiati alxasana tamhuha wa xaaliqi nnaas bi xuluqin xasan wa xurmatul xafli fi zalika ñu bañ a nekk ñoo xam ne bon dañu dem rek lamba seen yoon faaliwuñ ne yàlla may gis déedéet am na ñoo xam ne bu nit ñi taxawee ñu normal waaye bu ñu wéetee def lu leen neex yastaxfuuna min annas wala na min allah wa huwa maahum dañoo ragal nit ñi ñeme yàlla ñi toogee nga nit ñi dem nañ nga sànni fu la neex tànk commencé de du noonu yàllaa ngi fi ndeysaan Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu wa ardaahu dafa rus yàlla rus yàlla ba malaaka yàlla yu rus ko su daan tëdd biir néegam bu ñëwee day fay làmp bi day fay làmp bi dugg ci biir mbàjj mi doo a simmeeku allahu akbar moo tax yonente alayhi salaatu wasalaam yenn saa tëdd njaganaa nii ku ñëw su lay nuyu nii rek lay def aboubacar day ñëw mu ko nii umar ñëw mu ne ali ñëw mu ne ko nii bilal ñëw fi mu tëdd mu ne nii ousmane ibnu affan ñëwee mu jóg toog ñu ne ah mu ne kii yàlla da ko rus malaaka yàlla yu rus ko kon man yonent yàlla bi foog ma rus ko Omar Usmaan ibnu Affaan dafa bëri woon kees radiyallahu ardaahu jullit dafa war a rus yàlla ma ne yowmal xiyaam yàlla bu xëccee ne ko yaa def nangam yaa wax lii wala yaa def lii doomu aadama bi di weddi naan defuma ko walla waxuma ko xam nga fu muy mujj mooy sunu borom subhaanahu wa taala tëj gémmiñu waaj loxo bi wax li araamoon maa ko doon def tànk bi ne fi araamoon maa ko doon dem li araamoon maa ko doon xool nopp bi ne gémmiñ gi ne li araamoon maa ko doon lekk malaaka bi nekk ndeyjoor ne maa ko doon bind càmmoñ ne maa ko seede yàlla moon naa ko waaye dama ko bàyyi woon ci biir nëbb ko laqad araftu wa shatartu dama koo xam nëbb ko allahu akbar xamoon naa ne waa ji jubut baaxut waaye dama ko ko nëbbaloon waaye tey fii ci àllaaxira sama mbugal mi dina tar ci képp koo xam ne danga ma ñàkke woon kersa ñeme nit euh, ragal nit ñi ñeme ma man yàlla kon looloo tax mbokk yi dañu war a fuuglante ak yàlla juróom benneel mooy isbaatu lawxil mahfuz yàlla dafa am benn àll mooy bu nuy wattu lépp fa la ko yàlla enregistré lépp fa lay amee mooy lawxul mahfuz jàngi ngeen ko kon ci gàttal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 فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بارك الله فيك وجزاكم الله خير سنبرم subhanahu wa taala muy wax di saxal waxyu fi ilzaami almunkirina lahu min almushrikin mu indi ay dalil ay lay yu ne weng yu leer yoo xamante ne dafa ànd xel mu ko nangu mu koy wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam pour mu wax al waxal bokkaalekat yi muy ma bokkaalekati màkka ak ñépp ñu mel ni ñoom yor seeni melokaan ak seeni jëf ak seeni wax qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam araaytum xamal leen ma xanaa gisu leen axbiruuni xamal leen ma maa anzala allahu lakum min rizq li yàlla wàcce ci sëg allazi xalaq ka luhumin wal an'am li leen yàlla tàggatal ci ay jur ak ay xéewal waaw naka leen yàlla di leen defalee loolu ba pare fa ja'altum minhu haraman wa halalan ngeen ne lii araam lii dagan te lépp yàllaa ko sàkk wallazi xalaqa lakum ma fi l ardi jamian lépp lu nekk ci suuf si yàlla moo leen ko defaral mu ne leen moo ngi nii yéen ngeen ñëw di naan lii baax na lii baaxul lii dagan na ci lislaam yàlla moo nu defaral lépp ne nañu lekk lépp nanu naan lépp nanu sol lépp lépp lépp ñun ñoo ko moom waaye après ay texte mooy ñëw nag yàlla ne la li ma la mayoon kat am na lu ma ci coppati ba ko maa la waxoon nga lekk lépp nga bàyyil mbaam xuux kooku araam na bàyyil maa la waxoon nga naan nga ne waa mu ne sàngara bokkatu ci nga teg ne maa la nga sol nga ne waa mu ne teg ko fii bokkatu ci kon dafa am ci lislaam bi ñu yàlla daganalee lépp moom yàlla moomu moo ñëwaat nangam teg leen ko bu leen ko laal waxoon ngeen takk ay soxna ay yenn góor am sans jabar de léegi takk tënk naa ko ñeent ngeen di yem ku ko paaseeti njaalookan nga waaw def naa ci hôpital Roi Baudouin ma ni ku ëppal ñeenti soxna génn nga ci charia nekkatoo jullit ma ñibbi ñu woo ma téléphone ma hôpital baa ngay tàkk gaa yaa ngay reyante ñu ne ma ñëwal te yow la ma ñëw ñu woo ma ma dem ma dem ñu woo ci benn biro ñu ne ma yow lan nga fi xutba démb samedi lañ ma woo ñu ne ma loo fi xutba démb ma ne ah man de sama xutba moo doon dañoo war a tënku ci sharia al islam jàngale yàllaa ko yonent li ñu yàlla jàng indil yonent bi jàngal ñu ko dañ cee war a tënku ñu ne ma meet yow dafa am diw dangaa wax ci moom dara mane kuy kooku ñu ne ah taalibe bi ñoo ñëw fii di ñu ne yow yaaru ko doon ma ne man xutba baa ngi nii de déglu leen ndax man de dama ne ku ëppal ñeenti jabar génn nga ci sharia nekkatoo jullit kooku dafa ëppal ñeent ñu ne ma am na juróom-ñaar ma ne kon nekkatul jullit man ma ko ma turam de yàllaa ko wax ñu ne kon waxoo fi turu kenn ma ne ah dégg déglu leen la ñoom sax lan moo tax ñu jël affaire bi askane la ko seen kilifa. buub rek nga bàyyi mboq buum gi xanaa kon dangaa saaj dafa am sariya daf ñoo tënk képp ku ci génn bokkatoo ci jullit yi yàlla dane lii mooy sama yoon wa anna haza siraati mustaqiman fattabi'u lii mooy sama yoon topp leen ko kii mooy sama yonent moo nuñ fi nuñ koy toppee dañoo war a julli dañoo war a joxe azaka suñu amee dañoo war a aji màkk suñu amee léegi yow nga taxaw nga ne lii yàlla wax man du ko def ñun ñi toog nii njaboot gi ci kër gi boo ñëwee nga woote réunion nga ni lii laa bëgg ci kër gi kenn ci xale yi jóg ne la père nga ne ah mun a xolal loolu mun munta nekk man duma ko def duma tëdd 10 heures dara te bunt bi boo ko tëjee dinaa ko dajji waa yow nga ne ko eh mu ne waay xoolal ay góowaay eh. subhanallah nooy def da jël yat ubbi buntu kër gi ne ko jaaral ni alay sa ka zalika yenn saa yi sax nga gis boroom kër gu jël testament daal di bind daane diw bokkatul ci sama njaboot génne naa ko ci ah. bañ nga loi bi ci kër gi ñu génne la kër gi nga bañ loi yàlla bi yàlla génne la nga ne doo génn ay génn ku yàlla génne bokkatoo dafa am fukki mbir ku ko def ci lislaam génn nga moom lañuy ñuy wax nawaqidul islaam soo ci defee benn génn nga ci lislaam bu yeboo nga yor kaala gu ngand wala nga yor nga kurus wala nga yor ngan socc bokkatoo ci yooyu sax kenn du ko xool yowmal xiyaam inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsaamikum lakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum dangeen a xees wala da a ñuul da ngeen gàtt wala da ngeen a njool yére yi yàlla du ko xool xam nga yàlla lu muy xool xol bi ak jëf ji kon bu leen fekkati wërsëg bu leen yàlla may ngeen génn ci naan lii dagan na li araam na qul waxal gaa yi ba tey allahu adina lakum ndax loolu ngeen di wax yàlla leen ko def moom leen ko sax yow lii nga ne mees bi ah, ah lii nga ne araam na xar mi nga jël ne xar mi kenn du ko lekk xarum yar la kenn du ko lekk ci kër gi yàlla la ko wax loolu lañ la laaj lii nga bëgg ne araam na te yàlla daganal ko waaw law léegi yàllaa ko wax ah kenn du kenn du kenn du ñaani xorom guddi kenn du ñaw guddi kenn du jënd puso guddi kenn du tibb xal guddi ah kenn du romb ay góor yenu yore cin da ngay diri cin bi kenn du sangu àllarba àllarba doo dégg mukk ñu ne kenn du lekk àllarba boobu ak kenn du añ àllarba doo ko dégg de yooyu léegi du kenn du ko def àllarbay kare la tekkee kenn du sangu forox rek man de bu ma amoon jabar mu ne waa àllarba du ma sangu du fanaanoog man ci werandaa bi ah naka la nit di xëy kenn du sangu tey àllarbay kare la lu tax waxoo añu kare la kenn du añ doo ko dégg de moo yow dañu yóbbaate dañuy jël seeni xel di ko fowe jël seeni xel abal ko iblis ak seytaan bàyyi diina yàlla ji ko moo ko tere dafa araam a allah azina lakum yàlla dafa laaj ne ndax man ma nekkee yàllaa ko wax ay Sénégal da ngay dégg benn waaye bu bëgg a daganal dara xam nga lu muy def bàyyi soose jaw nee na ma sànq lalay laay déglu Baye Kumba Diop nee na ma Baye Samba Ndiaye ba moom mu ne ma Baye Samba Ndiaye mooy kan Baye Modou Diaw mooy kan ah kooku ku ko yónni ba su waxee dara ñu koy dugal ci suñu diine ji waaw kay moom kay keroog ba ba di way Baye Baye Diop fekk ñëw di naan kafe niiw kay bu jógee armeel di ñëw dafa war a jubal direct këram xooli jabaram xanaa namul jabaram ak i doomam waaye niiw naan café wax leen nit ñi leneen waay waaye wax nit ñi dëgg nañu wax nit ñi diine ah benn waaye nee na bi toog soo yére yu weex fi la ñuy toog bu ñu naanee ba pare delluwaat sa ku génn kaso ku rëcc kaso daw da ngay delluwaat dama leen laaj yéen ñi toog fii ñu ne la dañ laa condamné à mort nga rëcc ah? ñëw naan kafe delluwaat waay waay ku dee woon ñëw fii sa waay dootoo delluwaay daal dootoo delluwaat waay waaw da nga ñëw noonu naan café ba delluwaat naan jibril ñëwaat naa naa ñu gasaat bàmmeel bi nga tëddaat waaye bi ngay génn sax ci armée li yow foo jaar yow dañ laa suul munoo jóg nit ñi ñoo la yóbbu xanaa lu ñu dof dof dof xam ne waa ji bi mu dee bi muy dem dañ ko yóbbu dañ ko cee dugal dañ koo suul su mu noon dara kay ndeysaan suñu benn sëriñ nee na diw bi mu deewee dañoo ñëw yëkkati ko bu ko yóbbu armeel yi mu bañ a jóg bàjjanam ñëw dee ko ne ko wuyul ñii nooto bee xoto wat bone <laughs> mu ne wooyu ko mi defti ummo saɗa ñaama kono nooto ɓe ummo saɗa ubboye wona goonga wallaay wax na dëgg mu ne xam nga lu xel nangu mooy yekk nañ jógal nga añ waaye wuyul ñii ñu suuli la nee na loolu xel nangu nga ñëw ba ci néew bi asalaamaaleykum nga ne ko waaye yow tamit nag xam nga xanaa ne dee nga nag nit ñi ñëw nañ nag ñëpp a ngi nii sang nañ la ba pare nañ la suuli nag mu nangul nag bàyyi diis diis bi loolu xel nangu nag su fekkee yaa ngi wax moom mu dëkk da nga naan ko jógal ñibbi mais nit ñi dañuy wax wax yoo xam ne ngir rek farfarloo ngir duufal li ñu nekk ngir yëkkati ngir lan ngir ngir fekk dara amu ci xam nga ne loolu boroom xel nangu jógal ñu suuli la néew ñu ne ko jógal ñu suuli la boobu ba néew la sunu boroom nee na waaw yéen am alallahi taftarun léegi su fekkente ne lii ngeen ne araam na walla dagan na fan la leen ko yàlla wax munu leen koo indi munu leen wax dagan na lii araam na ci xéewal gi leen yàlla indil léegi waaw alallahi taftaru ndax dangeen di fenal yàlla da ngeen di wax lu mu leen waxul hmm, alallahi taftaru Sénégal moo di fenal yàlla laa ilaha illa guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg ci fenal yàlla la ndëkk gis naa yàlla yow gis nga yàlla ku ne gis naa yàlla day fen fan gis gisee yàlla yàlla nu mel ba nga koy gis yàlla nee na nii la mel yàlla nee na meluma noonu kon li nga gis lan la est-ce que kenn ci yéen boo dajee woon ak benn arab bu sol yére yu weex kaalawu am sikkim ne la maay Seydina Muhammad rek moom la lan moo lay wan ne kii Seydina Muhammad la mooy nga mosoon koo gis ah kenn ci yéen toog fii tey su ma suñ génnee léegi ma dajewaat ak moom suba dinaa ko xam wala du ma ko xam xam mu tax ma lay xam parce que yow dama laa yàgg gis koo mës a gis nag yenn saa yi nit woo la téléphone ne maa ngi ñëw sa kër nga ne ko waaw xaaral ma génn ci tali bi jëli la nga génn nekk rombante nga ak moom ba nga dem ba fële nga woo ko mu ne la ah, nga ne tali bi mu ne man romb naa tali bi nga lu weex jël léegi gis nga allahu yàlla nu mel nga wirdu wirdu ba benn mbott feeñu la ne la maay yàlla nga ne gis naa yàlla yàlla day mbott am na ñoo xam ne ay mbott ay xaaxaam ak benn waaye wirdu ba benn mbott benn jinne feeñu ko ne loo bëgg mu ne xaaxaam léegi naa année boobu bi mu béyee lépp xaaxaam la ginnaaw néeg bi sax xaaxaam yi dañoo sax daa ju daa tiit tiit waaw dafa tiit moo tax gars yi dañuy dof rek gisoo léegi dof yi ni ñu bëree mm-hmm. yor seen i kurus di wirde rek di saaga nag a dañoo gis lu ñu àttanut ay tur est-ce que mës ngeen gis saxaaba bu dof dégg ngeen ci islaam sharia islam ci taarixul islam ñu ne sax yonente bi amoon na saxaaba bu dof parce que ñoom daawuñu wir lu yàlla indi astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah fii lañ yem lii lañ doon wir waaye yow jaar jël tur tur boo xamante ne tur bi suñ koy bind day fees kër gi yor course boo xamante di per nga jal ko di xëcc par benn war a wax tur yooyu yëpp moo tax da xëy dof waaw loolu mooy wax ji sunu borom nee na atafta am alallahi taftaru ndax da ngeen di fenal yàlla wallahi ku fenal yàlla boo dee safara nga jëm mu ne wama zannu lazina yaftaruuna ala allahi alkazib yowma alqiyama ñii fenal yàlla lan la njortu ëllëg yowma ma ñii fenal yàlla wama zannu lazina yaftaruuna ala allahi alkadiba yowma alqiyama ñii fenal yàlla lan lañ yaakaar ëllëg buñ dekkee ba dajeeg yàlla yàlla ne yow yaa ngi nii nag tey yaa ngi sama kanam man nga doon fenal yaa ngi di ma fenal yaa doon fenal ci àdduna allahu akbar ngay wax lu la neex nekk ci àddina bi di tuur nit ñi lëndëm di naxaate démb kër yàlla laa fanaan maa ngi moom ñoo nekkoon ak yàlla nee na ak léegi-léegi laa jóge ci moom fenal léegi nag loo yaakaar kuy fenal yàlla moos xam nga ne léegi naa benn waaye dafa dem ci benn sëriñ bu mag rey nit ba pare eh, papaam dem waaw ñaan audience ba gis sëñ bi ne ko <laughs> man di leen laa sama doom daa rey mu ne ko léegi nag <laughs> mu ne moo tax mu ñëw mu ne ah ku rey nit de sa xel dem ci kaso ku rey nit sa xel dem ci kaso doon fenal yàlla tamit ba dajeeg yàlla xam nga ne mooy sa xel dina dem ci safara parce que xam nga ne da doon fen ci àdduna na ngeen ne yàlla mi ngeen di fenal ak di wax lu dul dëgg inna allaha yàlla moom la zu fadlin ala boroom xéewal la bu ko sotti ci nit ñi defal leen ko kon bu leen ko fenal yàlla ay waame waamey waamey xéewal la taw suñu kaw kenn ku ci nekk yàlla dafa taw ay waame xéewal sa kaw ba suñ ko doon lim duñ fa jóg walakin aksar annaasi laa yashkurun waaye lu ëpp ci nit ñi duñu sant yàlla waaw waaw chaque jour ngeen dégg ci rajo bi dañuy sant diw wala hmm. am na sax ñu tudd sant am na sax ñu tudd ñuy sant yéen a ko wax de am na ñu tudd ñuy sant ndax ñooñu yàlla lañ doon sant ba tudd noonu ñooñu ñu tuddee noonu ndax yàlla lañ doon sant ba tudd noonu déedéet kan lañ doon sant am mbindeef bàyyi yàlla di sant diw bañ tuddee leen noonu cant yàllaa ci yey koo sant ku ne ci xéewalu yàlla yi la jël jox la nga sant ko te ko jaarale ci moom mu ñëw ci yow te tàggat keneen mu indi ko ci yow kon booy sant santal yàlla ndax wa ma bikum min nicma fa min allah li ngeen yor ci ay xéewal ci yàlla la bàyyeekoo yàlla neen bàyyeekoo ci sàmba bàyyeek wallahi alazim sa doom yi nga yor seen kër di leen jox mu ñu lekk yow yaa leen di ñu lekk de wala taqtulu awlaadakum min nahnu narzuqukum wa iyaahum yàlla nee na bu leen rey seen doom yi ndax ragal ña man de am naa juróomi doom doy na defa nga planning juróomi doom doy na yàlla nee man maa lay wërsëgal yaag doom yi kon du yow moo tax gis nga ndeysaan kilifa borom kër sutura yàlla xoolal xéewal gi fii jóge sax doo ko doo ko xam xam nga lu tax gis nga ndeysaan ñii nekk sa kër ñii di yeewoo sa kër la yàlla di tàggatal ñoom ñëpp seen wërsëg di la ko jox pour nga leen koy jox. yombalal parce que mu ngi la koy jox yaa ngi leen koy jox anfiq yabnu aadama anfiqu alayka joxeel ma jox la sooy joxe yàlla di la jox essayé leen ko. anfiq yabna aadama anfiqu aleyka ba yónni ay malaayka yoo xam ne ñu ngi tasaaroo ci àdduna naan kuy joxe yàlla jox ko ku ŋot doomu ndey inna allaha yàlla la zu fadilin ala nnaas ci nit ñi walakin aksara nnaasi la waaye li ëpp ci nit ñi duñu sant yàlla borom bi nee na wa fi sha'nin وما تتلو منه من قرآن لا تعلمون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود وما تكون في شأن du ngeen nekk ci benn mbir fii amrin azim mbir mu ngeen mën a nekk gis nga tafsir bii nu toog nii di tafsir alxuraan bi nu jàng bépp jëf bu ñu mun a def yàlla nee na fekke naa ko seede naa ko maa ngi fa fekke naa ko dara rawuma waa léegi yàllaa nga fa toog ngay wax lu bon ak di ko jëf dégg naa benn waaye dafa takk jabar ñu indi ko seet bi guddi mu dugg ak moom ci néeg bi simmeeku seet bi simmeeku mu ne nii rek gis foto sëriñ bi mu ne eh mu wodduwaat daan ne ndaw si duma fi fanaan ñu ne ko lan la mu ne sëñ baag may xool nañ wut nañ dëpp foto bi waaw ñu ko néeg voilà dégg naa noonu la waa ji génnee néeg bi nee na ñu ngi koy xool mu ngi may gis mu ngi may gis mu ngi may gis mu ngi may de du ngeen dëpp wallahi lazi laa ilaha illa wa damaa woor risaatool laa dem defi conférence ma dalaloon këram nga xam ne boroom xam-xam bu mag la moom moo jiite foofu alfalaa bi nekk risaat ndeysaan mu may nettali toolu toolu tool yi nekk foofu ci ginnaaw ci àll bi tool yi nee na benn waaye dafa am tool bu ngand tool bi da koy ji ba mu rafet waaye comme foofu amul sécurité waa ji benn photo kilifaam sëriñam la jël photo bi deux mètres la ko def da def mu njool deux mètres yaatuwaay bi un mètre mu def mu def gisee rek da nga naan waaw ngandum photo nee na kooku mooy garde tool bi mu samp ko ci diggu tool bi benn waaye daal fay jaar daal di yóbbu sëñ bi <laughs> waa laalul tool bi dindiwul dara photo ba la yóbbu mu yow gisu ko <laughs> billaahi wallazi laa ilaaha illaa maa sëpp ci fenêtre école bi mu ne tool bii la tool bi gis nga ko ma ne mu ne photo ba doon garde la waa ji yóbbu ah, ndeysaan nañ ragal yàlla hmm. nañ xel ñu bañ a abale suñuy xel nit du abale xelam soo abalee sa ngay nekk dof mooy benn photo ne baa koy garde allahu akbar borom bi nee wamaat wama takunu fi sha'anin du ngeen nekk ci benn mbir wama tatlu min aaya alquran wala taamaluuna min amal du ngeen jëf benn jëf dul kunna aleykum shuhud danañu nekk ñoo xam ne ñoo ko teewe ñoo ko fekk fii duuna fiihi jamono ji ngeen koy def taaxuzuuna fii aw amalin bihi jamono ji ngeen di wax wala jamono ji ngeen di jëf jamono ji ñu toogee fii talante ci téere yàlla bi nekk ñu woor yàlla mu ngi nuy seede te yàlla mu ngi koy fekkee doomu ndey yi yàlla ne wama yazubu an rabbika dara fàdduwul ci sa boroom min misqaala zarra lu tol ne pepp suuf tarfatal ay ni lu ko gën a tuuti nëbbuwul ci yàlla yàlla lépp mu ngi ci teg gisa yàlla amul lu ko lu mu xamul waaw lenn dong la yàlla xamul lenn dong la yàlla xamul xam ngeen loolu ah? ah amul moroomam lu tax amul moroomam kenn la hmm. moo tax xamul moroomam moom loolu dong la xamul xamul moroomam yàlla kenn la kot jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu alwaahid alqahaar almuhaymin al aziz al jabbaar al malik subhaanallahi amma yushrikuun eh, wa maa yazubu an rabbika dara fàdduwul dara nëbbatuwul dara laqatuwul mim misqaala zarra lu toll ne pepp tarfatal ayni ci gën a tuuti suuf fil ard ci suuf wala fi sama wala asgaru min zalika wala akbar illa fi kitaabin dara nëbbatuwul du ci kaw asamaan du ci suuf du lu rëy du lu tuuti lu dul yàlla nee na enregistré naa ko ci benn dara lépp teg sama xam-xam ak sama gis amul lu ma xamul ñun nag ndax am na lu ñu xamul ak bëri koo yaakaar rek am na lu ñu xamul am na lu mu xamul xamul sax bis booy dee dañ koy woo téléphone allo mu jël ñu ne kooku kan sëriñ bi mu ne waaw ñu ne ko diw dee na te <laughs> kon kay xamul dara kan mooy dee ñu téléphone yàlla ne ko sa jaam bi dee na yàlla moom lépp la xam kon doomu ndey alxuraan dafa jara jàng alquran dafa jar a déglu alquran dafa jar a firi alquran dafa jar leeral suñu ñu jàngalee alquran suñ ñu ko leeralee suñ ñu ko firee dinañ xam kan mooy suñu boroom dootuñu ko dendale dootuñu ko bokkaale dootuñu ko mooy ndax danañ xam ne kii mooy suñu boroom jalla jalaaluhu azza kamaaluhu loolu mooy darsu tey ñoo ngi jéglu njum tey assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa wa barakaatu. Caminhão.